aballaahu anaasu ilaa xayri seyxina imaamihuma misaak Ahmad Tijaani njil ko ko léegi ki nga xam ne itam mooy ab jaam mooy koo xam ne gorewul ci yàlla mu ne nag kooku it bu jàppee wirdi wi dana gore mu ne toppkatu yàlla ak mooykatu yàlla toppkatu yàlla bu jàppul wirdi bi baax na nit ku baax la saalixu la waaye nag bu sóoboo ci yoonu tijaan wi dana paase darajatu saalix dafa dafay nekk aslaxu dafay nekk aslax dafay gën a baax ndax saalihu jaamu mooy jaamukatu yàlla waaye aslax nag mooy saalix mooy jaamu yàlla bu baax aslax nag mooy jaamu yàlla bu gën a baax dafay gën a baax ngir ne ci misaal rek ñetti misaal laa lay jox waa ji nga xam ne jàpp na yurdu Seydi Ahmada yi nekk taalibeb Tijaan ci biir jaamu yàllaam ni ko ko yàlla di fulale yàlla boole na képp ku jàpp yurdu Tijaan wi juróom-ñaar fukki junniy malaayika yoo xam ne dañuy ànd ak moom ci bépp jaamu yàlla bu dee julli ñoom dañuy ànd ak moom julli bu dee xoor bu dee zikar bu dee jàngal Quraan bu lépp lu mu def ci lu baax rek ñoom ànd nañoo moom jëf ko te seen tiyaabu jooju yëpp ci carnet jëfam lañ koy bind léegi ndax nit mën naa góor góorgóorlu ba naafile ci benn guddi juróom-ñaar fukki junni rakka kon loo mën a jaamu yàlla mën a jaamu yàlla ba ne soxlawu ma wirdu Seydi a Tijaani da ngaa réere ngëneelal wirdu wi waaye tey taalibi Tijaan bi gën a yées julli gee ba pare laata muy tëdd mu julli ñaari rakka kese door a def shafa witar ñaari rakkaam yooyu ba mu ko defee am na juróom-ñaar fukki junni rakka ak ñaari rakka pour bénéfice kon kooku jaamu yàlla manoo jaamu yàlla jaamu yàlla gure yi ba tax manoo jàpp nekk taalibi Seydi Ahmed Tidiane beneen bi ci des mooy benn peru salaatul fatihi li maa uxliq boo ko amee ci ndigal lu wér lu jokk ci Seydi Ahmed Tidiane boo ko jàngee benn yoon di nga am juróom benn téeméeri junni salaatu ala nabi yu bokkul ak salaatu yu bokkul ak salaatul fatih juróom salaatu ala nabi yooyu mu di mu di mu di mu di six cent mille ah muy soixante mille salaatu ala nabi nga xam ne tey beneen waay bu téye woon kurusam wax na juróom benn téeméeri junni soixante mille ah. 600000 600000 waa ji bu demoon téye kurusam di zikkar di zikkar di zikkar ay salawaat allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salaatu bu mën a def te salaatu bu nekk dana ci am fukki julli yoo xam ne yàlla dana ko julli ci moom salaatu bu ne léegi nag ndax nit ki mën naa toog rek ci benn guddi def juróom benn téeméeri junni salaatu ala nabi juróom benn téeméeri junni ah walla boog euh, yombul léegi nag benn peru salaatul fatihi foo ko defee yow am nga yoolu juróom benn téeméeri junni salaatu ala nabi kon ba tey loolu bu dee yaa ngi jaamu yàlla bàyyi ko fi dëgg-dëgg mu ngi mel ni jula boo xam ne dafa gis marché boo xam ne bu fa demee am bénéfice juróom benn téeméeri junni ci lépp lu mu jaay bàyyi ko fa dem ci marché boo xam ne par dërëm la fay am bénéfice xam nga ñaari jula lañ waaye duñ yem bénéfice kon jaamukatu yàlla bi jàpp tariqa bi noonu la mel bu ñetteel bi mooy ne képp ku ànd ak Seydi Ahmada Tijaani di taalibeem dañ lay yéegi ci martabaam looy jaamooti ci yàlla bu ñu lay fay duñ la fay yool bu tolloog sa yool mais dañ lay fay yool bu tolloog yoolu Cheikhu Tidiane boo jullee ba sëlmal duñu wax ne Ousmane moo doon julli mais dañu naan Cheikhu tijaan moo doon julli bu ñuy bind tiyaabo bi dañuy bind tiyaabo bu tolloog tiyaabo Cheikh Tidiane radiyallahu anhu loolu moo tax mu ne ko taayaana wa asiyan kuy topp ak kuy mooy yëpp bu dee kuy mooy yàlla nag moom it bu jàppee wirdu Tidiane wi werd wi lim koy def moy da ngay melni ku yo andi won wuru ku andi won peureum ñu soppi wat peureum ba defat ko jama defat ko khalis wurus jox la ci preuve shawtu ya neena inna sahibi la taakuluhu an naaru walaw qatala sabciina ruuxan in taaba ba'da dalika li anna qudrat allahi saalixatun li kulli shay'in mu ne sama man sayyid ahmad tijani sawara du ko lek donte rey na juróom ñaar fukki bakkan bu tuubee gannaaw loolu ndax kàttanug yàlla mën na lu ne ba mu waxee loolu ñu yaakaar ne da koo wax rek ngir bégal taalibe yi waaye mu def ko ci seen ci dundam dëggal ko ñu dem ba yàgg fu ñu wax waa diinuun seen muqaddam génn àdduna ñu ñëw ci moom ne ko wutal ñu muqaddam bu bees am benn bandi bu nekkoon ci àll ba ñu koy wax zaanuun rey na juróom ñeent fukki bakkan ak juróom ñeent di wut ku mu téeméerale ba nga xamante nii wax nañ ko loolu mu ne dem leen ci zaanoon def naa ko muy seen muqaddam muy reykatu nit ba gaa yaakaar ne meneen zaanoon lay wax ñu ne ko zaanoon man ci xanaa du zaanoon bandi ba mu ne moom laay wax te jóg leen dem ñoom ñëpp ñu jóg ñenn ñi xaw a jaaxle borom pas-pas ya gaaw dem ñee des topp leen ba leen zaanoon séenee yaakaar ne nit ñi mu daan rey seeni bokk ñoo daje pour rey si ko mu bëgg a daw mu xam ne mbooloo mënoo daw ba ci leen mu taxaw ñu ne ko ñun jàmm moo ñu indi waliyu yàlla wa ñuy wax Seydi Ahmed Tidiane moo ñu yebal ci yow radiyallahu anhu nee na nga ñëw nekk muqaddam ci sunu zaawiya ci xef ak tippi dafa naka la dégg turu Seydi Ahmed Tidiane rek ndekete jas bu na ko tur wa moo ko jas bu ci péeyu yàlla bi mu am fatxu nekk aarif billaahi dal di soppeeku kanamam gi leer di melkat yi ba mel ni koo xam ne dundam gi yëpp da doon jaamu yàlla mu daal di wëlbati ànd ak ñoom ñetti fan daal di génn àdduna booba mu ngi doon wane ne loolu mu wax dëgg la euh, yoonam wi mën naa defar ku nekk ci dayab yàqu boo duggee ci yoon wi danga defaru ci zaayar defaru ci baatin loolu nag mooy wirdu wi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox Seydi Ahmada Tijaani ci abi samxuun nga xam ne wirdu la woo xam ne moo moom la yàlla junj ci saaru ida jaa nasrullahi walfatxu wa raayta annaas yadxuluuna fi diinillahi afwaajan fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawaaban saar woowu moo mujj a wàcc ci saare alquran yi am na ay mufassiruna yoo xam ne sax saar wi bi mu wàccee ak bi yonentu génne àdduna ci ñaari weer lay toll am ñu wax ne ci xajjatul wadaa la wàcce ak lu ci mën a xew mooy saar wi mujj a wàcce ci alquran saar woowu nag saaru Seydi Ahmada Tijaani la ndax boo demee ci saar wi fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawaaban da ngay dem ci cati saar wi wastaghfirhu loolu mooy listixfaar astaxfirullah bi ngay def bi hamdi rabbika loolu moo tolloog ndax hamdu rabb mooy pay yonent bi fa moo tolloog payub laa allah kon saar woowu mooy wirdu tijaan idaa jaa nasrullahi wal fatxu loolu mooy junj faydatu tijaaniya bi ngir ne ñetti fatxu la yàlla wax ci alquran inna fataxnaa fatxan mubinan mooy fatxu bi nga xam ne wàcc na ci jamono yi yonentu nasrun min allahi wa fatxun qarib mooy fatxu bi wàcc ci jamono yi wilaaya jamono yi seydi tijaani isa jaa nasrullahi wal fatxu mooy fatx bi wàcc ci jamonoy xilaafa mooy fayda bi kon gis nga wirdu tijaan wi loolu ko yonentu jox ci at moomu lii lépp mu ngi dëxañu ci biir astaghfirullah salaatu ala nabi laa ilaha illa allah mooy wirdu wi ba tey mooy wazifa wi ndax wasifa bi ci boppam it mooy astaxfirullah ak salaatu ala nabi ak laa ilaa ak jawara sikar ci àjjuma xadra moom it mooy laa ilaa ilaa kese kon gis nga loolu lépp nag alquran la sunna yonent bi la sallallahu lenn lu ci ne man nga ko jangal aya alquran bu ko digle man nga jang hadith bu ko digle ba nopi da nga jangat hadith wax la bo delu waté ci góor yalla yi mbolem góor yalla yépp ak borom xam xam l'islam yu jup yépp wax nañu ngeenelal lolu kon wirdu tijan. mom sowetaas la bo xamne yalla moko feñal ci xéetu yonent yalla muhammad صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان pour bépp julit bu yàlla bëgg a dimbale ci sa lislaam mu rafet mu tënku ci nga matal sa lislaam matal sa liimaan matal sa lixsaan werdu woowu nag bakk yonent bi di jox dane ko in kuntu baaban li najaati kulli aasin musrifin ala nafsihi taallaqa bi fa nicma wa illa fa ayu fadlin lii yow rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee man Seydi Ahmada Tijaani damay nekk buntu mucc ñeel bépp mooykatu yàlla bu jàpp ci man baax na ma jël werde bi tasaare ko waaye bu loolu amut lan mooy sama ngëneel yonent bi ne ko def naa la ngay bunti mucc daal di koy dugal nag ci daayiratul fadliya daayiratul fadliyati bokkul ak daayiratu amatil xalq daayiratu amatil xalq mooy daayiratul lamri wa nahyi mooy géewub ndigal ak tere boo defee ndigal ñu fay la boo defee tere ñu duma la foofu la mboolem bindeef yi ne daayiratul fadli nag mooy daayira bi nga xam ne yàlla bu ci dee bu ci dugalee jaam bi da koy may lam koy may ci lu àndul ak charte ak lu àndul ak sabab firiwut ne dañu war a naagu def lu ñu neex ndax bañ a naagu bokk na ci charte tariqa bi waaye nag ngëneel la loo xam ne it il faut ñu gëm ko xam ne moom lañu yàlla may daayiratul fadli boobu buñ la ci dugalee boo defee benn bu baax dañ koy fil dañ koy ful ay junni junni mu nekk ab yool bu la ñaal boo defee lu bon ñu jéggal la ko soppiwaat ñaawteef ba yiw fulaat ko ay junni junni bindal la ko mu nekkaat ay tiyaaba nga xam ne daal sa xalima dafay damm daayratul fadl boobu ci la yàlla tabbal Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu ak mboolem ñooñu tariqa bi kon gis nga li ma ne la woon euh, toxutel Seydi Ahmad Tijaani bàyyi ko Tilimsaana dem Abi Samxuun nekk na taarix bu rëy rëy ci aalamu àdduna bi ndax ci la gisee ak yonent mu jox ko wird wi kon ci la tariqa tijaan sosoo ci àdduna bi kon loolu it faraape na dundu Seydi Ahmad Tijaani ndax xatmiyatu ak katmiya ñoom ñooy maqaamaam yi gën a rëy waaye loola ci jëmmam jala aju waaye tariqa bi moom dafa balle ci moom jëm ci mbindeef yi tariqa bi ci lañu ñu mën a jëriñoo dëgg-dëgg waaye du ci xatmiye bi ak tatmiye bi kon nga gis ne daanaka lim ñu indiloon dëgg dëgg dëgg mbóot ma mu ngi sotti ko ci ba mu toxoo jóge tilim saana dem abi samxuun radiallahu anhu léegi nag bu boobaa kon wirdu tijaan wi foofu la ko Cheikhu Tijaan jote ci rasulullahi sallallahu alayhi gis yonent nag am nañu koy weddi di wax ne gis yonent yàlla Muhammad yaqazatan ci lu dul nelaw mënta nekk waaye ñooñu di wax mënta nekk Cheikh al Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu moom da daan wax ne rek gis yonent bi daal képp ku ko weddi rek ñun ñu xam ne yow moom doo ko gis ñu xam na yow moom doo ko gis rek bu boobaa nag bu ñu xamee ne yow doo ko gis nit ki mënta àtte lum xamut kon da koo xamut da xamut loola waaye ñi ko xam moom duñu ko weddi ñun nag sunu lay ci gis yonent bi ñu ngi ko teg ci waxu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xadis xadis boo xam ne it imaamul buxaari indi na ko imaam muslim indi na ko mbooleem sax xufaas yi dellukaay ci hadis yëpp indi nañ hadis bi donte am na baat eh, waxi ne léeg-léeg mu wuute waaye hadis bi daf ne man raani fil manaami fa sa yaraani fil yaqazati wala yatamassalu cheytaanu biya imaamul buxaari noonu la ko indee yenent bi wax ne képp ku ma gis ci ay nelaw da ma gis ci yeewute ci lu dul ay nelaw man seytaane du takk du sàcc sama takkandeer kon yonent bi wax na foofu ñetti mbir wax na ne moom yonent bi seytaane du sàcc takkandeeram ci nelaw boo géntee gis yonent bi moom nga gis boo gisee yonent bi ci yeewu it moom nga gis moom te nee na danañ ko gis ci nelaw danañ ko gis ci yeewu te seytaane du sàcc takkandeeram sallallahu alayhi wa sallam ko léegi ko mom mo wax ci làmmeñam ne danañ ma gis ci lu nelaw ay wël yu yalla yo xamantene ni budé xam-xam la kenn ëpp leen xam-xam budé ragal yalla kenn gënu leen a ragal yalla budé dee maandu la kenn gënu leen a maandu bëgg yonent bi ak fonk ko ak moytu ko sosal kenn gënu leen ko def ñu dund ci seen dundu nekk ci yàlla seen waa jamono yëpp d'accord ci seen mbaax ñu dem a dem a dem ba egg ci ne ñoom yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ko ci lu dul ay nelaw te yonentu ne dees na ma gis ci lu dul ay nelaw léegi kooku kon léegi ku ko weddeetiif weddi ga fa xawma foo ko teg weddi googu mën naa yóbbu sax nit ci kéefër ndax benn man ngaa boo ko weddee dafa mel ni da nga wax ne yàlla mënu ko dafa mel ni weddi nga kàttanug yàlla kon qudratu yàlla bi lottuloo nga yàlla beneen bi mooy weddi nga loo xam ne yonent bi nee na dana am beneen bi mooy weddi nga ay waliyu yàlla yoo xam ne yàlla nee na man aadaali waliyan faqad aadantuhu fi lxarbi man yàlla képp ku ma noonul benn waliyu man yàlla déclaré naa la guerre kon weddi loolu wóorut te loolu bu dee ci buntu xam-xam la ba tey dafa am lu ñuy wax xaariqul aada mooy lu xotti baax baax mooy li ñu miinoon di ko def di ko xam comme bunt bii tey ci la ñuy jaar xotti baax nag mooy waa ji ñëw ci miir bii miir bi ubbeeku mu jaar ci jàll loolu la ñuy wax xaariqul aada dafa xotti baax li nit ñi xamoon dafa def lu wuuteeg loolu loolu mooy ay kéemaan gaa yi di ko tudde miracle miracle yooyu nag dafa am yu leer am yu lëndëm am na loo xam ne ñengukat yeeg luxuskat yi ñoo koy def mais dangay gis ñu def ay kéemaan ay magie mais nag yu leer yi mooy yi nga xam ne wali yàlla yi ñoo koy def ak yonentu yàlla yi yonentu li muy def mujizatu la tudd wali li muy def karaamatu la tudd boo jàngee xisasul anbiya la tàmbalee ci maam aadama wàcc si ci nuuxu nag hóod ak saalix ibrahima xalilullahi shuaybu ñoom bi dem ba ci yonent yàlla muusa isa ak li jaar ci seen diggante ba ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam di nga gis seen mucjizaat yi toujours da nga ci gis loo xam ne boo ko nattee ci xel rek xel mënatu koo jàpp danga ci fekk dekkal néew da nga ci gis xeer woo xam ne dafa xar gileem génn ci da nga ci gis loxo boo xam ne yet wu ñu sànni mu nekkaat jaan danga ci gis yet wu ñu dóor ci géej géej ga nekkaat ay mbedd danga ci gis koo xam ne dafa judduwaale ngumba ak ngaana ñu faj ko ni ki yonent yàlla isa yonent yàlla muhammad nag yu yëpp yàlla booleel ko nga gis ëkku tàndarma goo xam ne jooy na ci kanamam moom yonent bi nga gis eh, dégg nga eh, ja eh, yet wu mu jox nit mu nekkaat yi nga gis yet wu mu jox nit mu nekkaat ab làmp nga gis loxoom yu tedd ya ndox ball ca ndox moo xamante ni fukki junni nit ak ñaar naan nañ ca nga gis benn àndaaru dugub bu ndaw mu daal di ñaan tufli ca àndaar booba dégg nga ay junni junni nit lekk ca nga gis koo xam ne benn mbote xar la rendi def ci soos yonent bi ñëw tufli ca cin la lu ëpp juróom-ñett fukki nit lekk ca karamaat yooyu mujizaat yooyu masalan ku ko weddi mujizaat yooyu ku ko weddi rek ci waliyu yi wet dafa mel ni danga ngaa weddiwaat mujizaat yi ci anbiyaaw yi ndax saxaaba yi ñoom dañoo amoon ay karaama Seydina Omar ibn al toog na ci ko min baram di xutba fekk mu ngi yónni woon saariya ca Nahawand te Nahawand digganteem ak Madina mu ngi mel ni tey ku nekk fii senegal di wax ko d'Ivoire ci sore mu toog ci ko min bar bi ba yàgg ne ko yaa saariyatal jabal al jabal al jabal al jabal man taraka al xazma zal dégg ci bir khutba gi ñepp ne ah omar de dofna di khutba ba yag duggal ci ay wax yo xamne ken xamuko xamu ko saariyata bam ñibbisee euh, abdourahman ibnu mi nga xamne daf ko xawona a ñeme mu daldi dem ci sayidna omar ne ko ah yow de nit ñangi lay jew de yow de sa khutba gi mom la nga ca wax doyna war la nga ca duggal ken xamuko mune man day dama tok ci minbar bi rek fa ma toog yàlla won ma saariyata ca Naxawanda noon yi ak si ko ma xam ne bu yéegul ci doj bi danañ ko gañe ma doon ko dimbale ma wax ko rek yàlla yónni sama kàddu sànni sama kàddu gi mu mel ni téléphone mu mel ni damaa taxaw ci gannaaw mu dégg sama kàddu gi mu yéeg ci doj bi yàlla dimbale ko mu not noon ya bi saariyata ñëwee ñu laaj ko mu nettali mu ne ba ko Omar di wax dama yaakaaru ne Omar dafa taxaw ci sama gannaaw loolu du mojisatu du du karaamatu kon nag karaamaat yooyu ku ko weddi rek yaa ngi weddi diine yonent sallallahu alayhi sallam ulamaaw yi ne lépp kullu ma jaaza mujizatan li nabiyin jaaza karamatan li waliyin lépp loo xam ne daggan na di mujiza ci yonent dagan na nekk karaama ci waliyu ñu ne kon nag comme gis yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam la Seydi a Tijaani wax mooy karaamaam nañu seet ndax yonentu def na ko ñu ne xaka ah yonentu def na ko isra wal miraaj qissatu isra wal ñu ko nettali ci alquran xadis yi rot ci jullit lu ñàkk xam ñàkk xam xam na ne moom yonentu ba mu rañaanee daje naag yonentu yi xadis yi isra wal miraaj wax nañu ne sax yonentu romb na ñett taxaw ci mbedd kenn ki ne ko asalaamaaleyka yaa awalu ki ci des ne ko asalaamaaleyka yaa axiru ki ci ne ko asalaamaaleyka yaa xaashiru jibril na ko ku jëkk ki sa baay ibrahima la ku ñaareel ki sa mbokk Moussa la ku mujj gi sa mbokk Isa la ba mu demee baytil maqdis mu fekk fa yonentu yëpp ñu def seen ay discours ba mu paree yonent bi moo mujj jël xutba ba mu xutbaa ñu jiital ko mu julli moom la ko ibnu mursiyat naan fa taqaddamta lis salaati fa sallaw kulluhum muqtadin wa anta al imaamu hmm? kon waaw léegi yonent yooyu nga xam ne Isa ni nga xam ne moo ci mujj rek digganteem ak yonent bi nekk na juróomi téeméeri at Moussa moom nga xam ne nekk na ñaari junni at ak nangam Ibrahima noonu lu ko ëpp ba ci maam Adam léegi ñooñu lan moo leen indi baytil maqdis ñu daje fa yonent bi jiite leen léegi loolu jullit bu ko weddi rek weddi nga xisatu Isra wal Mi'raj ba mu yéegee ci asamaan mu demati asamaanu beneen mu fekk fa aadama te ci aadama jiite na ko ci baytil maqdis ah continuer juróom-ñaari asamaan asamaan bu ne am yonent bu mu fa fekk ba mu demee ci asamaanu juróom benn la fa fekk Muusa asamaanu juróom-ñaareel fa la fekk baayam Ibrahim te te te moo leen jiite ci baytil maqdis te moom dañu naan buraak la war te ñoom yoruñu buraak kon mbir yi boo ko nattee ci xel rek boo ko nattee ci xel rek dangay ngay weddi diine te ko yëg da nga koy bàyyi ak yàlla mi nga xam ne moom moo bind xel ba pare am lu raw xel am sax lu raw lu raw xel nga bàyyi yàlla moom rek lépp lu mu def ak lu mu wax nga ne noonu la nga bañ koo natt ci sa xel mu gàtt mi hmm? wala boog ku weddi loolu bul julleeti juróomi julli del julli juróom fukki julli ndax juróom fukk la woon Moussa moo tax ba mu nekkaat juróom te Moussa kañ la génn àdduna kon bu ñu ne lépp lu jaadu di mucjisa ñeel yonent dagan na mu nekk karaama ñeel waliyu dama ne yonent bi def na mucjisa boobu kon nag waliyu yàlla yi buñ defee karaama bi te du Seydi Ahmada Tijaani rek xanaa dañ koo bañ gay waaye bu kii Mahamdu Baaba Daymaani aalim bu mag ba ca Muritani moom dane walam tazal aqtaabu lawliyaa'i taaxuzu an imaami lambiyaai بعد منامه علوم السر كالشاذلي في أخذ حزب البحر وصافها السيوط عند القاهرة بيده يد النبي الطاهرة mu ne xut buy waliyu yàlla yi mos ñoo deñ di jël ci imaamul anbiya muy sayduna muhammad gannaaw bi mu nelawee ñu ngi jël ci moom xam-xami sirru dégg nga mu ne imaamu Shaadili xisbul baxri nee na ci géej lañ nekkoon ngelaw li géej gi jax ngelaw li bëgg a suuxal gaal gi yonentoo ko feeñu dicté ko ñaan gi nee waxuma ci benn xaraf lu dul ci dicté yonentu bi sallallahu alayhi wasallam yonentoo ma ko fite mu ne imaamu Suyuti wax na ne saaf wante naag yonentu bi ca Qaahira juróom-ñaar fukki yoon dégg nga loolu mooy li nga xam ne moo doon moo di xabaaru anbiyaaw yi kon awliyaaw yi xut bu yeeg ñëpp doon nañ jël ci yonent bi Cheikh Abdul Qadir Jeylaani nee na jëluma soxna lu dul gannaaw ba yonent bi ne demal jëli soxna jot na waaw nee it ba ma laata may wax yonent sallallahu alayhi wasallam moo ma moo ma oo ma waxal daal di tufli ci sama gémmiñ juróom-ñaari yoon ne ma demal nga wax ak waa Bagdad ba mu demee Seydina Ali ñëw tufli ci sama gémmiñ juróom-ñaari yoon ne ma demal nga wax ak waa Bagdad hmm? Cheikh Khalifa Nahru Malki nee na benn guddi gis na yonent bi ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar ci jenn guddi yonentu ne yonentu ne ko yaa xalifatu laa tadjar ala kasrati ruyati fa inna kathiran min alawliyaay maatu bi xasrati ruyati dégg nga bul ñeenki bul bul bul bul mukk ngir gis gu bëri gi ma gis bu tax nga xaddi wali yu bëri li leen rey mooy bëgg maa gis te mënuñ maa gis kon suufiyanke yu jëkk yi cheikh nuruddin chawni ñoom ak cheikh daawud az ñoom wax nañ ne dañ daan sax di julli ci yonent bi ñeen fukki junni yoon par bés ba egg ci jàkkaarloog yonent bi yaqadatan bila manaamin ñoo ñëpp imam Charani mu ngi leen tudd Cheikh Abdou Aziz Dabbaax borom libris nonu, kon góor yàlla yu mag yi yëpp yëpp yëpp yëpp dëppoo nañ ne man nees naa gis yonent bi kon Seydi Ahmed Yaan ku ko ci weddit xëj na da nga koo yàpp rek wala nga bañ ko waaye boo ko weddee weddil ñi ci des bu boobaa dana continuer ba jàll ci ba ci yonent bi boobaa weddi nga yàlla moo tax inkaar yàlla nañ ci yàlla musal léegi kon euh, gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, doy na ci rek xadis boobu ma njëkkoon a wax nga xam ne ci loolu lay wax yusuf an-nabahaani it wax na ci téere boobu ñu wax saadatu daara ni lu yaatoo yaatu cheikh umarul futi indi na ci rima lu bëri bugyatu bugyatul mustafid jeeshil kafil ak sariya hmm. te yaakaar naa dajeg ruuxu ku dund ruuxu ku lu war a mën a am la ndax dangay gént gis ku dee ndax gént googu yaa may sa bopp ku kook kooku ngay gis du yàlla moo leen dajale ci aalamul manaam mais ki leen mën a dajale ci aalamul naw mi mënu leen dajale ci aalamul yaqazati ndax aalamul naw mi ak aalamul yaqazati dafa am farq dafa am tàqale amul tàqale lépp ci aalam bi rek la ki la dajaleeg ñoom ci nelaw man na laa dajaleeg ñoom ci lu dul nelaw kooku yàlla la yàlla koy def hmm? ñu ngi nii nekk ak malaaka yi te duñ leen gis te ma te ku weddi ne malaaka amut gëmoo yàlla léegi mais da nga di nga gis malaaka ci xaariqul aada ci xotti baax rek la nit di gise malaaka malaaka yaa ànd ak ñun jinne yaa ngi ni ànd ak ñun te gisuñ leen te xayaatul anbiya lu am la kon loolu bunt la bu yaatu yaatu léegi nag bunt boobu jeex na buntu gis Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yonent wi foofu la daanoo léegi ba gisee yonent mu jox ko wird wi wird woowu mooy suñ wird waaye nag xëy wuxta xëy rek joxandoo ko wird wi yëpp daf ko jox wirdu laazim laazim biit astaxfirullaa la ko jox téeméer ak salaatu na bi téeméer kese ñu werd loolu ñeenti at bi ñeenti at yi mate nag ci bopp siècle bi nga xam ne léegi moom làq na juróom fukki at mu war a toog jot xutbaaniyatu itam war a nekk xutbu dégg nga booba toogagul ci xutbaaniyatu bi booba la ko yonent bi door a mottalil laa ilaha illallah téeméeri yoon te loolu it junj la xam nga suufiyanke yëpp seen tariqa yi fi jiitu woon tariqatu riyaada ak tariqatu shukri ñoo fi ne woon tariqatu riyaadati moom dafa séddalikoo lamb tariqa yu beure beuri tariqatu shukri nonu la ñaar fukki junni tariqa ak ñent mo am riyada lambon na fukki junni tariqa ak ñaar tareka ràmboo na fukki junni tariqa ak ñaar mais ñu dem dem nak ba ñom ñaar ñu dëxañu ci tariqatu shazali ak tariqatu ghazali sufyan kay ku ñew set bu la ci neex nga jaar bi da ngay sonal yaram bi ruhu rek la soxla xol bi rek la soxla xam mo gëna gën yoonu tidiane légui nak comme ñaar yoyu ño fi néwon ta dafa wara indi lu bees moom war a indi tariqatu ila ghayri شيخنا Jani.